sama mbokk jullit yi. soxna Ndiam Ciss. Mm-hmm. fii mooy Madiyaama. Mm-hmm. waa mën naa ciy dellu si kay. jafe-jafe bi de mu ngi commencé ci bi may am doom la ma dal fi ma dalee nag mère bi damaa pikir après bi ma pikiree. man ma cuur pikir bi ci laa ci la ci laa ko yëgee daal ma daal di yuuxu mu ma waaye looy yuuxu ma ne ko xanaa fi ma pikir baaxut mu ma lii ngay yuuxu ma ne ko di ndax fi dafa baaxut fii la ma pikir ma pikiree ci loxo ba ci laa yuuxu noonu mu ne ma xanaa yuuxuwoo lii rek ma ne ko ankay lii rek kay laa yuuxu ndax pikiruma tey kese amul amul doom tey kese mu ne ma pikir kese nga yuuxu man na ko lii daa ëpp pikir après mu ne ma tekkil sa gàllaay yi ma ko ay galaaj mun ma koo tikki ndax taluma ko kon wool ma ki ma àndal mu ne ma ki nga àndal jërul woo lee mu dal tëddal foofu ci laa tëddee foofu nag bi ma tëddee waaye bi ma tëddee tamit xam fan laa nekk loxo baa ngi yéey ne ko ah, meer Njaay gaañ nga ma de mu ne ma lii pikir kese la yow nga yuux ma ne ko waaye bu ne ma pikir nga ëpp na pikir ndax lii ma ne ko pikiruma tey kese pikir dawul ko def fii nga ne ma pikir kese la lii ëpp na pikir taxul mu woo woo ki nga xam ne ànd na ma ak moom sa commencé ba doon ñëw dégg na sama wax yeeg bay dikk nag mu ne ko meer taxawal damay def sama liggéey ci la tourné waat daa dëpp léegi ma ne ci biir di yuuxu ñoom taxaw ci ginnaaw dama yaraangal ne ma soxna Ndiame kuy dee dee ngor ma leen waaw bu leen neexee ndax xamu leen lan laay dund ci biir léegi na ñoom bi ñu demee ba ne affaire bi jaaxale leen après ci la doog woo ki xamante ne bii ne moom la àndal kooku ñëw di bës sama biir bi doom ji wàcc mooy mu ne ci man mu ma doo pousse doom ji doom ji dina dee ma ne ko man tëlatuma doom sama bakkan laa tal booba tëlatuma dara loxo baa ngi demee noo xam ne bii maanaam métti daal mënuma la koo wax daal toll na noo xam ci irsan rek ama may am doom la ba pare rek affaire bi yéeme na. te loolu piqûre bi rek la waa mm. piqûre bi rek la après nag affaire bi ama may génn waaye yëpp daa mujj suuf bu ñuul kuk kuk am benn daal léegi ñu daal génn dem kër ga ama ñuy génn suba te lañu waroon a génn waaye mu ñoo génn suba teel gi parce que juróomi junni yi nga xam ne moom lañu ko waroon a fay ci hôpital bi sama borom kër amu ko mi ngi Dakar après ci laa ko wooyee mu ne ma yorul xaalis bi mi ngi koy lijjanti waaye amagu ko ma woowaat sama doomu nday ji nga xam naa ko waaye moom it naa mooy xam rek dëkk bi daa doy waar mu mu mu nekk di lijjanti ñu ne foofu ba ay yooyu ñu fi nekkee ay 5 après ci lañ ma génnee bi ñu ma génnee ñu soog a dem kër ga bi ñu demee kër ga guddi keroog xam nga lu may fanaanoo loxo bi di yéey di yéey di yéey di yéey ba mënatuma toog daal ma dem si benn maaraabu ndendeel foofu noonu ma wan ko sëñ Fallou sëñ Fallou ne ma léegi tey ana kan ki la pikir mu ne ko ma nga ca hôpital wax soo demee nga wan ko ko li ëpp na pikir léegi ci laa wax ko ko na ko mère naa mën a ko ma depuis démb na nga si ma nga pikiré ma na nga si ma ne ko xamal la ma fanaanoo bi démb ma ne ko tey ji maa ngi ne xamal lan laay ma kon loxo bi daan doon loxo waaye pikir ma ne ko ah loxo waaw am naa gone ba pare ndax loxo ma naa ko na koy centre benn côté waaye man bi may ñëw ci taabal ji ma ne ko centre ma benn côté bu metti te yow wax naa la fi ma pikir baaxut dara dalu ma ci woon dara mosuma cee dalit ma na ko yow ma ne ma na ko yow ma centre ma benn côté wax naa ko yow nee naa la fi ma pikir baaxut nga ne ma ma la wol ma ki ma ànd nga ne ma jërul woo léegi nag ma ne ko loxo baa ngi nii su yàqoo ma naa ma ne ko yow la su bonee yow la ci lañ demee nag ci silla docteur bu góor bi daan ma bindal kii it na ma yéen daal directement janatu maa ngi toog si la di bind damay toog si la di bind ba yàgg ma ne ko si la ma naa ma ne ko man de jàngu ma maasuma ma naa ko waaye li ngay bind ko la xool xam ne lar nga ay wor mu na ma yore xam naa miti du moo tar ma ne ko miti du tar waaye li ma la wax dëgg la ndeket kayit bi mu ko bindee xam nga ñu ci def seen yëfi tubaab yooyu ne leen daa feebar feebar wàcc ci loxo yi te demewul noonu boobu loolu rek la loolu moo tax naa ma ñëwee jenatu gëstuwuñ ko xooluñu ko waxuñu ma leen léegi nag kayit laa ci mën a indi laa dafa dafa newi nii waaye bëgg foo ko àpp ma ko comme ça daa yi mu boole juróomi loxo yooyu rek ci benn loxo bi dafa yéey ba ci mbagg mi bi ma ñëwee euh, janatu ñu xool ko daana ma yow ci irsan lañ ne ma dañ koy dagg ma daal yéen samay loxo génn waaw ñu ne ma dañuy dagg loxo bi ci laa yéen samay loxo génn ne ko yaay ma naa ko sama àdduna yàqu na man mu na ma su bu ko waxaatee ma na ko ah kay ne man jëmu ju mel nii ndaw lu xonq ci yi ma naa ko ñu dagg sab loxo dina yéeme trop. te sama kër mën naa koo doy na doy na waar doy waar goo xam ne man maa yorewul sama bopp ak sama njaboot man maa daan takk laxasaay takk sama sër maa xëy ba wàcc heure bi daan fekk dama pare añ ba demee maa ngi daan doog a rusi añ ndax su ma ba wàcc li ma daan xëy moom laa dajalaatu ma ñëwee togg si añ jox sama njaboot ñu lekk sama borom kër bañu ko waaye dafa néew doole ginnaawam loxoom jotut ginnaawam suñ kër boo fa demee dëkkuwaay mënu ma la koo wax mais mbëkk dem boobu dong ma demee saam sama ne ba yéeme na yéeme goo xaaye macha allah mënu ma laa wax ni mel daal ci dëkkuwaay déedéet déedéet ñoom ñoom ba léegi gisuma leen mm-hmm. ba barki de maa demee lijjanti kayitu juddu xale bi dañ maa wax da ngay fay bari maa mujjee waaw boobu ba léegi gisuma leen gëstu wun ma laajte wun ma. comme xam nañ ne erreur yoon moom bëgg na ma cee dem sama doomu ma parce que meroon na ñoom ñëpp ba newoon nañu dem ci yoon waaye après bi sama borom kër bi dikkee ci la wax ne moom tamit nee na ab sëriñam da tere léegi sëriñ nag moom bu la xasee wax na la bàyyi soo bayul ëllëg lu ci am day def ay jafe-jafe loolu moo tax mu bàyyi na ñoom ñëpp meroon nañ même sama borom kër bi ñu ko wooyee Dakar ne ko dañuy dindi loolu mënut a demee noonu ndax pikir de mu yàqu te mënut a nekk waaye da ngeen bàyyi ba ma ñëw waaw bañ ma pikiree maanaam comme ça ñu pikir ma démb ma dem tey hôpital dañuy dindi loxo bi léegi ma ko sama borom kër ñu woo ko téléphone wax ko ko mun loolu mun ta nekk pikir démb mu yàqu mun ta nekk léegi bale ba ma ñëw ba xam ne xool léegi am benn papa ma fu nekk mu ne ko bala maa ñëw affaire bi ngeen ko lijjanti bala may ñëw ndax loolu mënut a demee noonu piqûre de mu yàqu tey loolu mënu ma ko gëm waaye bi ñu la ko doo ko gis nag. lu ma waaye mën dimbalee nga ko rek ngir yàlla gim sëñ Fallou Mbacke ndax maay sama bopp yore sama njaboot sama borom kër loxoom jot ginnaawam lépp lu ma waaye mën jàppale lu may yore sama njaboot ak dëkkuwaay loolu mooy li ma moom laa bëgg ndax sama kër yaay gi ma nekk nii sama yaay ba ñëlu ma dara waaye moom it dafa sësut ci kenn amul kenn ku ko jàppale waaw am ma doomi baay joo xam ne sës na ay doomi baay rek laa am ama ko ma bokkal baay waa bi ma pikiree foo xam ne ndoxum pikir bi jaar na fi rek daa yëy loxo bi da yàq lii lépp dafa sumeeku woon waaw léegi nag sama yaay moom it nag doy nay waar loo trop sonn na trop ndax affaire métit yi demewoon noonu waxaane bu ma dikk am na gudd xam ne janatu gudd ko rek li ñuy wax boo wërta dee rek dafa tombé sama yaay di egsi waaye jant boobu kon kenn mën na maa faatu jant boobu waaw ndax miti gi demee woon noo xam ne sama yaay suur boobu bu egsiwutoon sama yaay egsi mi egsi nag tombé mu jënd ñaari bitéeli mi ak ak galaas ma waaye mujj na yàgg sama noog dafa mujj aj sax ndax mitir bu tar talatuma leen xamatuma leen lu may def sama yaay dana ànd man sax di jooy ndax moom susu ci kenn amul ku koy defal affaire bi daal garaaw na garaaw goo xam ne mu ne su ko yéeme na daal léegi euh, waaw. léegi daal nit ñi daal laa bëgg képp koo xam ne yaa ngi may dégg nga jàpp ci te yàlla tax képp koo xam ne am nga am nga leen benn moyen boo ma dimbalee nga dimbale ma te yàlla ndimbal daal laay sàkku. lan nga gën moom kay moom kay wax ji moom damaa mënul wax waaye moom dëgg ndimbal daal fu mën a fu mën a foo mën a xam ne man a faa jaar nga jàpp ci waaw.